أهازني الباقي من السيطان حين رماني وفي الأوطان fu ab Sénégal la ne waaye di nuyu jullit yëpp fépp fu ab jullit ne deen ñaanal yërmande yàlla yàlla wàcc sunu kaw nun jullit ñëpp di ndokkeel nag rajo ak télévision bu Lamp Fall Serigne Aliou Thioune na ca bopp ba te sas ko ngir liggéeyal sëriñ bi Serigne Ibrahima Gueye wuutu ko fi ñëwal ko fii ci man ngir ndokkali ak gàttandu at mi nga xam ne mooy atum jullit mi te jullit bu ne war koo jàppee sama at. te bañ a jaawale ak meneen at rawatina nu taalibe sëriñ Tuubaa nga xam ne sëriñ bi yëgutoon sax ne meneen at meneen at am na léppam ci at mii la koy tënk badatu bismillahi min muharrami loolu rek doy na sëkk fu mu masane itam te foofa di jëfandikoo yeneen at ba ci biir géej gi moom weer yi ak at yi lay doxal te wax na ne sax at yi dañ koy nuyu weer yi di ko nuyu bis yi di ko nuyu waxtu yi di ko nuyu te wuy door a egsi da nga ko nuyu booy demit da ko tàggu kon looloo tax sa am jafe-jafe ca tukki ba ngir mën a joxe faratay koor ak sunna ya lum xiin-xiin lum taw-taw bu waxtu jotee dana ko ne accident buy demee dana ko ne maa ngi dem bu bis bi ñëwee dana ko nuyu buy demee dana ko tàggu kon nag noonu fonk gi sëriñ bi fonkoon weer yi fii te ñu ko wooyee sax weeri arab war naa tax nu fonk ko te fullaal ko tey moytandiku nag li ñuy wax complex complexe nag mooy ñu yóbbaale la ba nga fàtte li nga am ak li nga moom ak li nga doon dara di jéggaani leneen feneen kon nag maa ngi ndokkeel jullit yëpp ci at mu bees mii nga xam ne mooy sunum at di Amadou Tassine di mille quatre cent quarante quatre hijriya di ñaan nag at mi doon atum jàmm at mu bari xéewal at mu bari taw tawféex ci mboolem jullit ñi yàlla jeexal tawat yëpp yàlla jeexal bekkoor bépp yàlla jeexal geer yëpp tappe xol yi boole leen ba jàmm am fépp rawatina fi réew jullit yëpp rawatina sun réew mi noo ngi ndokkeel Cheikh mu Mountakha te ko siyaara di ñaan yàlla defal ko jàmm may ko wér yàggal ko fi lool moo ki bokkam ba mboolem lu mu def ci yoonu murit yéene koo defal jullit ñi ak réew mi mu def ko ni ko bëggee te nand koog moom kullu aamin wa antum bi xayr wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh